amiin aar li ñu bokk ñi ngi si aar li ñu bokk te ñu ci ñu bokk ndekete duñu yeewoo ci réewum Sénégal rekk la soxal suñu doom yi nekk itam ci biti bi réew noonu la leen soxale sénégalais yi nekk Argentine amal nañu ak jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi di naqarlu coowul pétrole bi lëmbe Sénégal te ñu tudd ci Alioune Sall di rakk ci njiitu réewum Sénégal ñuy sàkk justice mu def liggéeyam leeral lu ni mel Assane Baye Fall tàttan na seeni kàddu tey danoo ñëw fii dajaloo pour euh, ñuy dégg Sénégal boobu ba tey loo xam ni neexuñu muy affaire pétrole ak gaz ñuy dégg kii moo def kii deful tey nag ñuy ñëw fi dajaloo di ñaxtu rek pour xam dëgg bi loolu lan soxla ñun ñun du affaire politique du affaire dara danoo bëgg en tant que sénégalais danoo bëgg ñu jaar affaire bi ci yoon ni lii moo am kii moo tooñ kii mu tooñu ñu teg ko ay daan ñoo ngi ñaan nag Sénégal yëpp jug taxaw pour leeral lii il est temps il est temps que Sénégal changé te lii ñun ñu nekk ci diaspora bi ñoo war a yeewaa Sénégal ndax lu bari duñ ko xam il est temps dafa jot sëkk ñoo ngi ñaan suñu xalif généraux yi ñu jug taxaw ci lii ñu def benn conseil sax bu amoon conseil général boo xam ne si euh, religion la catholique yi musulman yi booloo wax ak kan yor nguur gi ni ko lii na leer mu tegu ci yoon ñu xam ni loolu mooy doxal Sénégal mais c'est pas ça buñ toogee na leer pétrole bi leen wax xamuñu kii moo jël kii jëlul mais dañoo bëgg rek lépp ñu jaar yoon ndax Sénégal yàlla dañoo may loo xam ne si mooy sunu magi diine ji ñu fa ñaan ñu am jàmm jàmm jooju nag bu bëggee mu am mu continuer danoo bëgg suñu xalif juré taxaw lu fa deful yoon ñu xam ne lii la ñu wax mu leer ku ko deful ñu jëlee la palais ëllëg teg ko loolu mooy yoonu fi Sénégal il est temps nit ñi wax il est temps nit ñi jug kas ñuy droit loolu lañ soxla tey du woon dara nag jërëjëf. ñun liñ dégg ci suñu réew moom ni am nañ fa ndegam dëgg la te yaakaar naa dëgg la ndax loolu du ay fen ndax ñëpp a koy wax ngeen baal na ci kàddu gi. kon yow sow yow mi nga xam ne yaay sunu njiit nag li ñu moom dimbali ñu nga leeral ko ba mu leer teg ko fu leer naañ yi tegu ci. ñun loolu lañ soxla lu leer rek lañ soxla te nga jàpp ci nag te yërëm ñu nag ñun soot nañ ci àll bi te dañoo bëgg a ñëw suñu réew nag xam ni réew mi ñoo ko moom ñu ressource ba fa feeñ ñu teg suñu loxo bokk koog yéen nag te xam ne yéen dong moomu leen ko ñëpp a ko bokk lu ñëpp bokk nañ ko seddoo ñëpp am ci ku ne sa wàll. mu mel ne suñuy kàddu tey li ko tax a jóg ñun ñoo ko xamandoo ku ne gis na bu yàggul euh, tele bu mag boobu nekk ca Angleterre. génne ci journalam luubal boo xam ne dañ koo luubal alalu senegal loolu nag damaa jàpp ni képp ku dib sénégalais boo ko yégee war nga boo ci mënut dara it war nga cee wax ndax ñu ñëpp ko bokk te kenn ku nekk ci ñun gis na suñu doom ya nekk sénégalais ak suñu famille coono gi ñuy dund ci wàllum paju ak wàllu wér-gi-yaram ak wàllu taxawaay kon nag li ñu warta nangu mooy ñaari nit wala ñett war a jël loo xam ne famille ñoo ko war a dundee ak askan te dañ ne xubbul watani minal iman bëgg sam réew ci jaamu yàlla la bokk kon li loolu rek waroon naa tax tey fu sénégalais nekk yëg annonce bi ak foo mën a nekk nga bàyyi lépp loo jàpp ndax li ñu tax a teew fii du affaire politique ñun politique ñu man yaakaar naa ça euh, c'est la première fois may teew ci yu mel nii ndax lii ñu laal dafa dafa wuute ak wàllu politique lii maanaam sunu sunu koom-koomu réew lañu maanaam lañu laal sunu koom-koomu réew te ni ñu déggee xibaar bi maanaam ñi sàcc gi dafa yemul sax ci ñun ñi nga xam ne ñoo ngi dund waaye sunu njaboot yoo war a ñëw sax dañ leen a sàcc kon lu lii affaire bu garaaw la lu rëy la loo xam ni ñun waxuñu ni li li li li télé bi wax dañ koo gëm waaye dañoo bëgg ñu ibbi ci ay enquête mbir mi leer tegu ci yoon. ndax justice Sénégal war dafa war a tëddee njaaxaanaay waaye li ñu xamul mooy bu ñu jiiñee mbir nit koo xam ne bokkul ci sa parti nga jàpp tëj bu ñu gis nañ fi kaawu xalifa Sall gis nañ fi kaawu euh, euh, Karim wàdd te lii tele bu mag moo ko wax te journal télé yu mel noonu lépp lu ñu dem ba koy génne duñ ko génne ci ci ci risque ndax tey bu ñu génnoo loo xam ne foo information la ay daan yu rëy lañ leen cee teg. benn li lay xamoon ne lu wér la maanaam ki ñu ko tuumaal biñ ko waxee daf ne day porte plainte waaye xam na ni porte plainte bi arrangé wu ko ndax li xam na li ñu ko waxal dëgg la suñu koom-koom réew nag lii kenn ku nekk da ngaa war a jug wax ci ñun waxuñu ni moo ko jël ndax loolu leeraguñu loolu leeru loolu leeruñu dañoo dañ koo wax rek euh, télé yi dañ koo wax ñu bëgg euh, justice bi ibbi ci ay enquête ñu ñu leer la ko ba mu leer ni moo jël wala moo jëlul bu fekkee ni moo jël ñu xool nuñ ko réglé ba mu delloo ñu suñu xaalis bu fekkee ni jëlul ñu bàyyi ko mu dem ñun lool rek la ñuy wax loolu moo ñu tax a teew. asalaamaaleykum euh, ñu ngi nuyu sénégalais yëpp di leen baalu ak aussi di wax ne tey jii dañ fee dajaloo benn ci ay sénégalais ngir rek clamé mbir mu nga xamante ni daf leen naxari te ma foog ni ñun ñi ñu koy def euh, kenn ëpp ñu ci sañ-sañ parce que bokk ci sénégalais yi nga xamante ni. weer bu dee huit cent milliards yi nga yi ñuy wax ne euh, sénégalais yi nekk à l'étranger ñoo koy dugal Sénégal ñun dañoo bokk ci sénégalais yooyu te aussi ñu nekk bitim réew te nekk gi nekk bitim réew ak suñu yoon yeneen moroomu sénégalais dara yóbbuwuñu ko lu dul dëkk bi ñu dëkk muy Sénégal moo doxul mm-hmm. léegi nag bu yàlla dogalee am lu feeñ Sénégal lu nga xamante ni tey jii suñ ko appliqué jaarale ko ci yoon ñun ñi nekk fii nii danañ fi jóg ñi nekk feneen danañ fa jóg dem Sénégal ñu dégg ne ñett wala ñaari nit wala ñeenti nit ñu ngi koy séddoo di ko defee naka sul noonu dafa jaaru ñu taxaw wax ni naxari nañu ba Sénégal gépp dégguñu aussi ñuy demandé benn affaire muy ki ñuy tuumaal muy sa Sall moment bii may wax ak yéen jàpp ma ni waroon naa continuer di nekk ci post yi mu occupé maanaam tey jii procureur daf ko waroon woo dóor ko mandat dépôt en ñuy lijjanti ndax dëgg wala du dëgg ndax lu mel nii du si la premier fois mu xew fi dafay masoon xew te bi mu fi xewee euh, sénégalais yooyu dañ leen jël yóbbu leen ci yoon téye leen ba pare di leen laaj nag ñuy justifier ñu leen di tuumaal. li ñu mënul comprendre mooy réew mu mel ne Sénégal bu nga xamante ni tey jii nit yi bu ñu xiifee duñu lekk bu ñu bëggee faju duñu faju suñu bëggee naan duñ am ndox bu baax bu ñu naan courant day coupé autosuffisance en riz ñu ngi koy wax ay at ba léegi mënuñu ko atteindre parce que ay moyens yu koy yu ko àggal foofu amuñu ko ñu am pétrole am gaz bu nga xamante ne tey jii ay milliards la yu bëree bëree bëri te bu fekkonte ne président de la république ak ñi mu àndal jaarale nañ ko fi ñu ko waroon jaarale problème bii ñu am duñ ko am parce que li ñuy tuumaal ne Franck Timis ak Aline Sall moom la ñu détourné ci xaalis man waxuma sax li ñu ko doon fay par mois waxuma sax li nga xamante ni tey jii dañ ko ko jox mais 6 000 yooyu nañ ko analyser. parce que 6 000 milliards yi bu fekkoonte ne président signé na contrat bi jaarale ko fi mu ko war a jaarale tey jii du dem ci poosu frank Timis mais li tax mu dem ci am mooy jaarul fi mu war a jaar parce que bu fekkoonte ne Sénégal dafa téye affaire bi ñu jaarale ko Petrosen Petrosen tey xaalis boobu day dem foofu mais bu demee foofu dafay compliqué ci ñoom pour ñu sàcc ko ndax bu boobaa dañu ko dugal ci budget bi te bu ñu ko dugalee ci budget bi day poser problème ci ñoom pour ñu sàcc xaalis boobu léegi pour ñu sàcc ko nag li ñuy def mooy dañ koy jël jox ko beneen nit dañ koy jël jox ko beneen nit nit boobu su ko encaissé moom dee leen ci mën a jox li ñu ci war a am ñoom te problème du am affaire bi du Aline Sall affaire bi président de la république la parce que ki mu jox euh, permission bi ISE daf ne ko waroo ko koo jox parce que amul compétence amul dara lu nga xamante ni war naa tax ñu jox ko pétrole Sénégal ñu jël ko jox ko ko li tax ñu jox ko ko nag ñëpp xam nañ ko mooy moom su ko encaissé lañ ci war a am comme parti dana leen ko delloo ñi ngi demandé président de la république procureur de la république ngir yàlla affaire bii nii du ay caaxaan buñ ko foyee alalu Sénégal la te sénégalais yi nekk bitim réew dañu sonn ci àll bi dañu bëgg ñibbisi toog Sénégal liggéey te alal ji nga xamante ni yàlla jox nañu ko suñ ko jaalee fi ñu ko war a jaarale coono yi ñu nekk yépp danañ ci génn wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon ñi ngi koy ñaan di ko xamal Macky Sall ñun dañu bëgg Sénégal mu mel ni Libi ca jamonoy Xaddaafi ku ne xam na ne Libi jamonoy Xaddaafi euh, Libi bokk na ci réew yi nga xam ne réew àdduna bi dégg nga réew yi nga xam ne si moo gën ci réew yi àdduna bi par exemple amoon loo xam ne si sax libyens yi amoon loo xam ne si ay bénéfices yoo xam ne ci seen réew européens yi sax amuñ ko woon étudiants yi bu ñuy jàng duñu fay bu ñu bëggee logement dañ leen di jox logement gratuit dégg nga boo demee ci seen hôpital yi. boo demee ci secteur boo mën a dem ca réew ma da ngay gis ne vraiment kat ñii ñi ngi bénéficié wu ci ré ci ci alal ji nga xam ne moom la leen suñu borom may muy pétrole ñun nag yàlla def na am nañ pétrole am nañ gaz am nañ am nañ fer am nañ euh, euh, am nañ zircon yàlla maanaam lépp loo xam ne si am réew soxla na ko pour mën a dem ca kanam rek yàlla may nañu kon nag ñu ngi ñaan suñu njiit yi ñu ragal yàlla ñu nekk ay patriote ñu gëm seen réew dimbale Sénégalais yi te bàyyi discours yi nga xam ne si moom la ñuy def di wax naan bu ñuy def ay discours di wane ne ñoom ay démocrate lañ di wane ne ñoom ay patriote lañ te la ñuy jëf ca biir dara niroowu ci ak loolu ñuy wax. li ñu bëgg a wax lépp daal yaakaar naa day tuuti pour ñu mën ko wax mais ñun dañuy wax ne euh, mobilisation bi ñu def duñ ko yemale tey rek dañuy continuer. di gën a informer Sénégal yi nga xam ne ñi ngi nekk ak ñoom fii ci réew mi ci Argentine ñu gën a xeex xeex bi gën a yokk mobilisation bi waaw ba nga xam ne si vraiment la nga xam ne yàlla may nañu ko ci Sénégal Sénégalais bu nekk gis ci sa bopp. banque Timis a versé deux cent cinquante millions de dollars à Agitrans pour quelle raison ensuite dans ce reportage. nous avons entendu que le dénommé Aliou Sall, qui n'a aucune expérience, qui n'a aucune expertise en termes de pétrole et de gaz, et recevoir euh, une telle somme d'argent. Maintenant, ce que nous voulons savoir, c'est la clarté, la transparence, c'est la publication des contrats qui ont été signés avec les partenaires. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce contrat Parce que rappelez-vous, la nouvelle constitution qui a été votée en référendum par euh, les Sénégalais lors du magistère de, de, de, de Macky Sall, il est bien établi que les ressources naturelles appartiennent au peuple. comme les ressources naturelles appartiennent au peuple, nous, le peuple, et quel que soit le bord qu'il se situe, nous voulons savoir la vérité. nous voulons savoir aussi comment se fait-il que les ressources naturelles du Sénégal, une autre personne, outre que les Sénégalais, puissent avoir 90% des actifs et que le Sénégal euh, n'a que 10%. Nous voulons savoir comment ce, ce processus s'est-il passé. En d'autres termes, nous voulons aussi que la justice nous éclaircisse sur ce point. nous éclaircissent sur ce point parce que nous voulons savoir ce qui se passe. Parce que nous ne voulons pas que le Sénégal se termine comme les autres pays de l'Afrique ou bien les autres pays euh, du monde, je veux dire. Parce que y a d'autres pays en Afrique qui ont des ressources. En l'occurrence, euh, le Zaïre, euh, le Cameroun et tant d'autres ont le pétrole, mais ils ne se bénéficient pas de ce pétrole-là. Mais nous, nous, nous ne voulons pas terminer euh, comme ces pays-là. Nous voulons que ces ressources-là euh, vraiment prospèrent et nous profitent à nous, Sénégalais. Parce que c'est Dieu qui nous a, qui nous a donné cela. Mais il faut le partager, il faut aussi le, le mettre sur les points très transparents pour que chacun puisse y trouver son compte. Et c'était la raison pour laquelle nous avons convoqué ce point de presse et nous invitons à tous les Sénégalais de la diaspora quelque bor qu'il situe, qu'il se manifeste pour que la transparence jaillisse. Vive le Sénégal. C'était l'essentiel de ce point de rassemblement que nous avons eh, organisé ici en Argentine et particulièrement au Buenos Aires. Merci beaucoup.